10 heures 50 mooy euh, doog a jot on démarre ak euh, euh, anniversaire ou voilà voilà voilà voilà voilà photo envoyée à tonton Mac message qui vient de chez Fama si je ne la jàllale pas elle va m'amener des problèmes elle est pire que Bijou donc joyeux anniversaire à Bouritop voilà c'est El Bouritop de la part de ses amis intimes Adja Abou Fama et Fatima Dieye donc Fama Thioune qui souhaite un bon anniversaire à Bouritop tey jii la bésam on lui souhaite un happy birthday voilà et puis joyeux anniversaire à Ndeye Maguette euh, Ndeye Maguette Femme Ndeye euh, de Paris euh, qui fête euh, ses 14 ans de la part de son papa Maodo sa maman Mariem Diop ainsi que toute la famille donc euh, Ndeye Maguette euh, Femme on lui souhaite un bon anniversaire joyeux anniversaire à Mam Fatou Endo anniversaire. Eh, non, mais la danse là, c'est pour Mam Fatou Ndoye. Ben oui, eh, je, je... je, je, je, je, je lui, on lui souhaite un, un, joyeux anniversaire. On lui souhaite un, un joyeux anniversaire. <laughs> Un, un joyeux anniversaire à Manfatou Ndoye. Voilà, parce que boo mag jëkkëram ay tubaab la ñu quand même. Cheikh Traoré daf lay romb, il te connaît pas. Bonjour. Alors qu'il te voit à la télé tous les jours. Bonjour. Alors je dis aux gens, mais j'ai rien compris. ñu ne monsieur le mari de mam mam Fatou Ndoye ma leen ah d'accord bu ko neexee mu dosé su ko neexee parce que sa ah. femme elle est brave donc équipe bu télévision Futur Média yëpp ñu ngi souhaiter un bon anniversaire à mam Fatou Ndoye Traoré beaucoup de bonheur et surtout yàlla gën ko may kattan boo xamante ni euh, li mu nekkee ci euh, télé bi dina ko matal je pense qu'on va faire un discours ak doomu ndeyam non discours pour Mame Fatou joyeux anniversaire yàlla may ko gudd fan ak wér moom vraiment liggéeyam kenn dootu ko natable ah Pape am na taxawaay bu am solo la très rigoureuse aussi parfois mu mu mu gëtan ñu lu baax mais dafa bëgg lu baax Mame Fatou Dia chaque jour loolu la ñuy wax elle est très perfectionniste chaque fois dañ lay wax lu lay persévérer surtout tamit di ñu jàngal def leen ni et puis très modeste très modeste vraiment Pape Mame Fatou longue vie à de bonheur voilà donc joyeux anniversaire à on l'aime beaucoup donc beaucoup de bonheur pour Mame Fatou Ndoye euh, Traoré Mame Fatou Ndoye dañoo bëri te bokkul am na beneen Mame Fatou Ndoye paraît-il buy def anniversaire Mame Fatou Ndoye longue vie à toi yaay Mouhamed ak Astou de la part de Khady Ndiaye Lémou alors Khady Ndiaye suñu Khady Ndiaye la donc mu ngi souhaiter un joyeux anniversaire à Mame Fatou Ndoye yaayu et Astou joyeux anniversaire à mon grand frère Assane Assane Sy euh, depuis France de la part de Kiné Sy et son frère Fallou voilà Assane ngi noonu ci photo bi ak ñàngal bi <laughs> yu grave ngay gis <laughs> Coco Schnapp bon joyeux anniversaire à Serigne Saliou Faye que Dieu lui accorde une longue vie santé de fer from Broadbester <laughs> yes donc euh, Serigne on lui souhaite un bon anniversaire Joyeux anniversaire euh, à une personne très importante pour Kia Aïdara, sa sœur, son amour, Mariem, de la part de Kia, Oussoubébé, Zeina, toute euh, Binta Dia, Rose et sa maman. Voilà. Aujourd'hui, notre grande sœur chérie et aujourd'hui, Souadou Mbodj, Madame Yad, de la part de ton ami Marie Wali Yad, de tes enfants, maman et tes sœurs, dont moi, ta petite sœur d'amour. donc joyeux anniversaire à. à Swadou Mbodj Swadou Mbodj tey la anniversaire am. Mhm. Cindy Lauper astafurlah. Ah, Cindy Prime depuis Atlanta c'est son anniversaire aujourd'hui ah c'est une américaine happy birthday Cindy Prime. <laughs> to to Atlanta voilà Cindy joyeux anniversaire. je pense que jeex na de. Mhm. on a tout fait aujourd'hui ah. li jeex na. Fefsi merci. quel sera le